d'ici euh, deux mille vingt quatre présidentielle bi. si nous savons que ne présidentielle wax dëgg ne yàlla ngir gagné ko du ay manifestation moo la koy may Dakar. il faut nga dugg ci biir réew mi est-ce que am temps dugg ci biir réew mi boole seen combat benn maanaam seen candidature boobu ak campagne bi ñu war a def mais également bëgg taxaw xeex ngir troisième. Euh, maanaam daal war ñaari mbaam. est-ce que dina mën a nekk est-ce que dina mën a nekk parce que temps bi du leen xaar. est dina mën a nekk bon loolu peut-être nañ mën nañ ma may peut-être ma xool li nekk ci charte bi. Mhm. parce que seen biir charte boobu peut-être ci la lépp dëxëñu. Mhm. parce que la charte également va fixer les règles entre ñoom peut-être. wala par rapport ak sa combat bi nga xam ne moom la ñu bëgg a mëne parce que ñoom il faut il faut il faut euh, ñu ñu ñu jàpp ne ñoom seen combat comme ni ko waxee mooy Macky Sall. Mhm. samp ndëndam <laughs> c'est au moins un combat. Mm-hmm. mais est-ce que combat boobu war na occulter yeneen combat yi. Ah. nga xam ne y a d'autres députés qui se dressent devant mm-hmm. l'opposition. muy en terme de parrainage. Mm-hmm. muy en terme de de de de de code électoral yëpp taxaw seen kanam. est-ce que combat bii ñuy mëne contre Macky Sall mu bañ a présenté wu est-ce que du occulter yeneen yi. Mhm. est-ce que du leen tardel loolu nag fa la question bi amee sens yow ma mbay parce que bu boobaa est-ce que ñoom dinañu am temps matériellement pour dem battre campagne parce que il faut se dire que vous l'avez remarqué ñu bëri ci ñoom. ils ont déjà affiché leur ambition. Mhm. bëgg naa nekk candidat wala bokk man candidat laa wax nañ ko ba pare mais bu boobaa nga war a dem campagne war a tenir ay meeting war a wax ak say militant war a wër fu ne ci biir réew mi est-ce que dinañu am jot googu déjà euh, à partir du 12 mai ñu ngi annoncé un grand rassemblement ak des séries de manifestations un peu partout à travers le Sénégal peut-être li ñu ci mën a génnee mooy c'est également une bataille pour pour euh, une, une, une gagner la bataille de l'opinion justement parce que genre yi boo ko déggee da lay niroog lu rëy tu te que tout le Sénégal où une bonne partie du Sénégal est mobilisée contre une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. et ça, en matière de, de, de communication et ça peut peser. par exemple sur l'électeur bu nekk fële nga xam ne peut-être mi ngi toog di observer. Mhm. ça peut l'aider ou ça peut le décourager ça dépend. on verra bien ce que ça va donner. est-ce qu'ils vont réussir. seen objectif. Mhm. comme l'a souligné Fofana y avait le M23. Mhm. le M23 contre la troisième candidature de maître Abdoulaye Wade. Et pourtant, après, Abdoulaye Wade a été candidat. Mm. Donc, du coup, m n'avait plus sa raison d'être. Est-ce que ce sera la même chose ouais, mais non, mais ils, ont, ils ont changé. Ils après changé. De dénomination. Ils ont parlé de force vive de la nation. Force vive de la nation, les mêmes forces vives de la nation ici, voilà. d'autres <laughs> acteurs et Benin contexte. Mais, mais vont-ils réussir leur mission oui, ou pas Mais, mais, mais, Man Simon, l'un règle aujourd'hui, est-ce que chaque leader engagé ci F24 bi est-ce que chacun n'a pas sa mission déjà personnelle sa propre mission, cest mm-hmm. c'est-à-dire essayer d'arriver sa mission mm-hmm. à celle de toute une organisation parce que xam nga lan ma jox benn affaire marché Moussa Nté la rek <laughs> benn ko maa maa ngi ne di bëgg a nax sa bopp. man lii f bi comme marché Moussa de toutes les façons kuy indil NTM. Hmm. ak euh, parrainage bi baaxul. ak man daal dëkk bi moom kii warul bokk kii voilà ku ne man am naa problème ak justice il faut moo régler ko. Mhm. ku nekk yaa ngi yor sa combat nag. ku nekk yaa ngi sa man comme marché Moussanté la rek. marché Moussanté mais li ñu euh, dëxëñ ci seen. Euh, mhm. li leen boole. charte bi mhm. xëy na loolu yëpp bu ñu ko amoon. Euh, peut-être dinañu dinaa la expliquer benn affaire. ndax jubóo nañu déggoo nañu am déet. non dégg ñëpp eh, nañu waxante dëgg. ah ay ay ay règlement intérieur parti yeeg. ay charte loolu ay kii benn kii. potu potu sàmboor la rek. dañ koy non loolu amul c'est-à-dire l'essence. mooy problème mu àndoo ànd bu dëggu. waaw est que àndoo bu dëggu bi am na ci seen biir. est-ce que d'accord nañu tey. Ah, loolu moom ñoom ñoo ko war a xam. bon de toutes les façons quand même euh, euh, euh man je pense qu'il ne faudrait pas danser plus vite que la musique. ça ñoom taxawal nañ ko mën nañ am préjugé favorable ci ñoom. Mhm. mais peut-être du nekkaat comme m mais de toutes les façons observation yu ñu fi def yëpp et remarque yu ñu fi def yëpp c'est parce que dañ ko dund ak M23. Mhm. maintenant f ba xam. dina ñëw ci beneen doxalin boo xam ne ne li ñu amoon ay préoccupations en deux mille en mille onze préoccupations yëpp foofu la fii lay jaaree jeex fii lu jëm ci wàllum troisième mandat c'est tant mieux. beneen bi. Mhm. oui allez mais benn élément la ñu fàtte c'est que PDS bokkul. oui le PDS naturellement mënul bokk. évoqué nañ parce que Mimi Touré mais également PDS. PDS daa dem benn ngi nañ ko teg ñoom parce que conseil constitutionnel moom moo ko validé. même cas de figure oui même cas de figure la donc. ñoom mënuñu nekk contre mënul mënul nekk à l'aise pour mën a porter combat et là aussi c'est un indicateur. maanaam jour le jour où on prononce la candidature de Macky Sall recevable le PDS ne va pas dire non. ah doy na waar de en tout li ci kanam rawu la ñoo ngi xippi ñoo ngi ñoo ngi xippi suñuy gët di xool ah, comme niñ ko defee woon ci yeneen euh, mouvement yi euh, bari na nag ñu ci ñu ñu ci bokk ñun waa Tëngéej sax am na benn mouvement bu si bokk. Ah. waa mouvement Rufisque d'abord Souleymane Sy le président nee na ñoom ñu ngi ci waaw. nee na ngi ci biir F. l' initiative est bonne peut bi nga xam ne bëgg nañ ko porter. mën nañ wax ne il faut apprendre mhm. mhm. li xew ak m je crois que bu ñu ko xoolee ba càmbar ko. ba xam lan moo nekkoon véritablement les obstacles. ñu ko mhm. surmonter je crois que dinañ ci mën a génn. bien bien sûr de fond quand nekk ci sincérité. parce que le M23 le est né de quoi. du 23 juin. oui wax wax waxet. Mm-hmm. du 23 est wax la wala euh, quart bi. m ñaar yooyu la porté woon. quart bi non parce que M23 c'est wax waxet. wax waxet voilà. non lu tax ñu tuddee ko mouvement du 23 juin. par rapport à justement la loi du quart Mhm. C'était le 23 juin. C'est vrai, c'est à partir de oui, c'était le 23 juin. Voilà, donc tax ñu ko mouvement du 23 juin. Mhm. Donc il y a eu un élément, il y a eu euh, pour eux une forfaiture. Mhm. Voilà. Il y moo tax ñu tuddee ko mouvement du 23 juin. 23 juin. En tout cas, je crois. Ah, bon, maintenant force du 24 avril m dem na F24 moo dikk. amul benn problème ñoo ngi toog di xaa destination bi ndax ñoom liñ bëgg dina am wala déet. Euh, Simon Salinaar mi ngi nekk Tëngéej nee na li nga sol vax bi dafa rafet. moo tax yéen ñëpp dina leen habillé vax nee na. waaw Salinaar euh, sama sama sama jigéen bu baax la man man dama bëgg vax nee na li nga tax mu abiyee ñi ñii dina leen jox vax damay dox ci mbir mi sax ma gis kuy jaay bu rafet ma dagg ci ñaari ñaari lan yaar wala meetar yaar la ñuy def ñaar rek mu mët na chemise hmm. waaw nee na rafet na moom salinaar donc euh, nee na dina leen jox yéen ñëpp sali nag wax naa leen ko kon nag il faut nga fekk nag ñun ñun nag tey ji moom <laughs> suñu téléphone bi dama <laughs> yéeg leen ci kaw tribune bi jot na boo leen yéegee ci kaw tribune bi ñu waxtaanee fii réew mi toll ak nag euh, euh, euh, tolluwaay réew mi li yéene kaay yi xëy fësal actualité bi daf ko résumé yéene kaay groupe des médias tey dafa ñëw ci lii nga xam ne moom lañ doon waxtaanee sànq mu di F24 destination 2024 waaye lu ko jiitu nee dañuy xeex ngir na président Macky Sall mandaawam bii nga xam ne moom la ñuy laam laame donte moom waxul waaw waxul déet. nii wii nii non nii wii nii non. mais en tout cas ñu ngi koy laam-laamee. lii du mën a déet lii ñuy seen muy raam di ñëw. ah di dire ku muy ñëw nii ñu bëri dañoo njort ne. Hmm. sampaan dëndëm lay doon pour am troisième cas troisième mandat. alors loolu nag la waa F24 ne mukk doo fi yegg si dañ lay baaree laa route. <laughs> tax ñoom ci boppam ñu booloo parce que Bougane Gueye ren dafa woote woon NTM. non à un troisième mandat mu wéetoon ci lool nag ci xeex bi. Mm-hmm. parce que ba mu taxawee mouvement bi. ñu bëri kii wu voilà mais gars ñi nee nañ ko nekkate combat bi foofu la. nekkati xeex bi foofu la donc dañuy ñëw ànd ñu xeexandoo troisième mandat boobee ngir mu bañ am opposition bi joxante nañu loxo en rouge lañ ko def couleur bi dafa am sens. Mhm. parce que bu ñu waxee opposition bu joxante loxo daanaka yàgg nañu joxante loxo waaye da ngay gis ku rucc sa loxo ñu si bëri dañuy rucciwaat seen loxo ñenn ñi duñ jote duñ jote sa joxe loxo. wóolante wuñu. wóolante wuñu. marché mu santé. marché mu santé ku si nekk da ngay ñëw am loo <laughs> wala booy toog doo toog confortablement da am nooy toogee pour dañ ko la mbas. waaw di sànni gët. waaw di sànni gët di xool koy dendel ak koo dul dendel. naan di warumoo jiitu kii maa ko war a jiitu si liste bi. ah wóoluwuma ko daf may doon kii wóoluwuma ko <laughs> kii daf may ëpp visibilité. non en tout cas fi mu nekk nii daal di ñëpp gis li ñu wane. xam de façade la xam moo nekk lépp. mooy joxante nañu loxo opposition ku nekk ñëw na signé. ngir na xeex. président Macky Sall Sonko wax Bougane Gueye Dany jote woon euh, euh, euh, xam nga ñoom amoon nañ fi woon ab kii fàttaliku démb sa couleur ya mm. mais en tout cas cette fois-ci Sonko ak Bougane Gueye Dany dajawaat nañu si benn combat bu nga xam ne moo leen boole maanaam ñoom ci boppam taxaw nañu ne kon président Macky sa mandat bii nga bëgg a dootu fi amaat leneen li ñuy xeex moo di déré yi nga xam ne moo am ci régime bi ñoom noonu lañ ko jàppee doxalinu yaa ma neex gi ñu jàpp ne kon moo fi am ñoom dañoo jàpp ne kon Sénégal fi ñu toll nii daal mi ngi mel ni Yaya Jammeh temps ba ba mu nekkee Gambie nga xam ne Yaya buy romb boo ko tàcceewul sax mu merel <laughs> Yaya buy romb di. non mais boo ko tàcceewul damaa bëgg xam benn affaire entre parenthèses. <laughs> waaw mais affaire Cour des comptes bi fu mu toll. buub sàccee. cours des comptes bi toll. 98 milliards yi. Euh, cours des comptes saison 2 ah, milliards yooyu woon ci audition yi au niveau de la DIG. waaw am nañu am nañu audition yi dafa arrêté. oui ñu ngi doon déglu daa ji xaw ma nag pare nañu woon pare wuñu en tout cas dinañ jokkoo ak. <laughs> suñu dinañ xool daal. waa mbiru quat euh, commissaire Adrame Sarr euh, OFNAC war nañu léegi waa OFNAC lan la ñuy wax euh, loolu moo ah. nañ ko moo nañ ko boole ci combat bi de. ah waaw waaw. ci ci f en tout cas waa PDS nee nañ boo leen bokk bokk leen ñun bokkuñu. Mm-hmm. Parti démocrate sénégalais nee na yéen opposition bi joxante leen loxo ñoom it ñu ngi si opposition bi mais bokkuñu ci booloo gi xàccandoo dóorandoo la ñuy wax ñoom nag bu ñee xàccee ñoom dóoruñu. ñoom opposition bi waa PDS non partant fu mu nekk nii nag wax fa dëgg nee nañu pare nañu ngir def ay manifestation mhm. ñoom waa force 24 bi wala force vive de la nation F24 février 2024 nee nañu avant boobu ay manifestation lu ñu fës kee ne woote fii ci réew mi gox yeex gox goxaan ak si diaspora bi looy rey asma. février 24 bi kay lay rey. F24 février 24 wala force bi 24 wala ñoo ko tuddee. waa léegi élection bu amul 24 rek. ñu tëbal ko rek. <laughs> F25 wala F F mi 24. <laughs> en tout cas ñoom joxante nañ loxo gis nga super linguère mi ngi nii de jigéen ju man góor mi ngi ci. super linguère ay dëmbooj ñoom mi ngi ci Bougane ngi ci maa ngi siy gis Thierno Bocoum ñoom euh, euh, Déthié Fall ngi ci voilà waa M23 ba woon ñu ngi nii en tout cas yéen kaay bi dikk na ci euh, ci li nga xam ne rek moom bi force 24 boobee ñu jàll ci tey tey ji la ñu ko wootee mu di cour d'appel bi nga xam ne daanaka procès Sonko ak Mame Mbaye Niang un appel pour terminer la liquidation parce que yéen kaay bi nee na appel bi na entre guillemets la def liquidation bi la ñuy la ñuy laam moo di liquider Ousmane Sonko lañ ci jublu maanaam fu mu nekk nii moom candidature am moom wax fa dëgg dañ ko kepp nii rek boo yëkk mi rot du samay kàddu yenn kaay bi moom mooy wax ñu ñëw ba tey ci ndaamal kajoor bi nga xam ne moo occupé woon actualité bi kenn du moom bu noppee sax actualité la ah toute non ndaamal kajoor bu noppee sax actualité la man dama man dama bëgg Idrissa Seck dama ko bëgg <laughs> ndaama dama ko bëgg le leader de de réew mi une bougie qui s'éteint eh waaw war nañ ko def nii kon moom perte de vitesse la ne. di kay. daamal Kajoor fu mu nekk nii sa safax witta la nekk ci wàllu politique dem na retraite dafa bañ ndekete. jox nañ ko kaala jox nañ ko kurus. une bougie qui s'éteint. moo ma jaaxal. sondeel bi fay bougie bi quand ça s'éteint là c'est l'obscurité totale. bien sûr kon moom mi ngi kon moom daamal Kajoor da ngeen bëgg ne dem na retraite. ah mi ngi ci pliyaanam nii yor kurus. jàpp julli def ñaan ko looloo ko dese. di bulon mais on a pas dit une bougie finie qui s'éteint. une qui s'éteint daal qui s'éteint. ngelaw mun na ko romb ñu tàllaat ko. kan kii. bu fayee ci ngelaw te fekk yow kii bougie ba mu tàkkee ban année la da nga ko fekk. kii bougie bi li nga def dafa bare. mais mais mais mais Simon. Ablaye Wade a été dans l'opposition pendant vingt six ans. ah bah voilà. mais moom ci boppam moo annoncé woon day dem retraite. sa bougie ne s'est pas éteinte. wax dëgg yàlla xoolal ah dafa xew dañ ko soppi baatu. <laughs> waaw dañ ko dugal. <laughs> ragal de dañ kaa weccoo ci diggante. <laughs> Idi daa mel dañ dem marché Colobane rek dugalaat ko. bàyyi leen jàmm nga jël teg si xaalis ne jox leen jox. Idi daa mais tant que la bougie n'est pas finie et qu'elle s'éteint elle ah. peut avoir euh, beneen souffle de vie. mun mu nekk xam naa benn phénix yooyu. waaw ah, mun nañu ko daal de ah, man na ne nag Sénégal moom politique bi fi am nii xoola bu mu la bett. lu nekk lépp xaj na fi. du biir day jékki-jékki rek wasin politique du Sénégal noonu idi mii daal moom nee na fu mu nekk nii moo téye actualité bi lu mu ci man ci doon waa benn Bokk Yaakaar nee nañ ko comme te nag da nga osé ba taxaw jël sa position namat rek abal ñu ñu soxlootuñu la doo ñu rax bilaay affaire bi soit soit xulo yàmbaa la waaw soit euh, combine bëre lu mu ci ah combine bëre wala xuloo yàmbaa kenn du dem police waaw lu mu ci manti doon Abdoulaye Sow APR Kër Massar la nekk mu ngi sàkku ci ndaw yi ñu àndax dal bu leen nangu ku leen manipuler xam leen ne kon ëllëgu réew mi seen loxo la war a tegu te loxo yi mu war a tegu ay loxo yi set ay loxo yi mm. mature kon nag maturité mënta weesu nga bañ ku la manipuler bu leen nangu politiciens yi nga xam ne dañoo dem ba ñoom dem nañu fekk nañu ab Léopold Sédar Senghor fekk nañu Abdoulaye Wade fekk nañu Abdou Diouf tey ñoo ngi dundax Macky ëllëg ñu fës kéene leen yéen ñëw dundax li ngeen war a dund ci euh, euh, arène ci fii ci réewum Sénégal bu leen ko nangu Abdoulaye Sow nee na yéen ndaw yi moytu leen ku leen manipuler bañ leen bu leen nangu lool bu leen dugg sax si lool bés bi le jour ñëw ci F24 février 24 force vive lancement lancement du mouvement des forces vives contre Macky ñi ñoom dañoo takku taxaw ñoom benn ko benn mbër lañu am muy président Macky Sall soxlaw ñu bëre mbapat ñoom arène bii lañ ko bëgg a yóbbu arène nationale bi. ci biir bëre dóor. Queen Biz est dedans aussi. ana moo nekk nii. Mhm. wala kii may mën a busolo. ah kii may mën a busolo de. xale ya ko. waaw kii may mën a busolo. <laughs> non ku nekk xam nga nag boo boo boo déggee sans sans organisation comme entité eh, politique mais Mbaye am na ci ñoo xam ne est-ce que am nañu sax juróomi nit. non am na ci ñoo xam ne seen mouvement ñoom kase la. doolee bokkul en fait. am ñoo xam ne seen mouvement ñoom kese visibilité visibilité la ñu bëgg mais garaaw nañ porté combat bi rek ñoom quel que soit alpha porté leen combat bi rek. mu nekk combat de principe. waaw. yéen bi di ko poussé Macky à renoncer à un troisième mandat à supprimer les articles 29 30 57 du code électoral et le parrainage. Ah, lii ah, ah. mooy xeex bi nekkati. c'est ça. lii mooy xeex bi benn troisième mandat du fi amee. ñaar ñu supprimer article vingt neuf trente cinquante sept bu code électoral. ñett ñu ne parrainage lañ ko fi jële ah moo tax Bougane Gueye daañu nekk fii. kon ça rejoint li ma doon wax. Ah. Ah. na charte baa ngi nii kon. lii mooy xeex bi. du rek troisième mandat bi. parrainage bi tam dañ bëgg mu abal leen. dañ bëgg ñëpp bokk foofu rek mën nañu raté yeneen combat yi. waaw waaw. nee nañu nag PDS si ñawul. ani moo tax si ñawul. Mimi Mimi. ñoom daal mën nañu di gérer nit ñi. mimi nii dañ ko allergie. tata mimi daal lañ wax ne foo bokk bokkuñu. tata mimi nag maa ngi xaar tontom a nga moom moom moom. ku ko yëpp da ko fekk mu ne la wala mu toog. non PDS. mais nag sa taaw bu góor ku ko ku fexe ba rek. ne ko ñam tata mimi. non comme tàpp. day nit ñoom. <laughs> comme tap. bu sama yaay waree saar nekk. maam jaara paam nekk <laughs> comme tap <laughs> grande manifestation la ñu fës kee woote le 12 mai contre la candidature de Macky Sall yéen a kaay dikk na si Abdoul Mbaye borom toute la vérité ak euh, euh, Fabrice Guéma émission bu mag bi émission bi nga xam ne. ñëpp moom la ñuy buuxante fu mu nekk. déet waay. Mm. ah c'est vrai hein. képp ministre député wala nga nekk benn ah autorité. le niveau est très très élevé. niveau bu mag bi la high level. Abdoul mbay décline l'appel de Macky Sall nee na dialogue bi ngay woote wuyuwuma du da nga mën a woote rek ñun wuyuwuñu en tout cas moom moo wax moom Abdoul Mbaye nee na wuyuwul. suuf saa dafa ñëw euh, ci euh, kii nga xam ne dañ koo gëj a dégg ana maam Ndiare. maam Ndiare. Abdoulaye Diouf ñëw na. Idi et ses ministres partir kon nag bu fekkee nag da nga ne ndab lii na fi jóge yow mi nekk ci biir ndab li sippil sa loxo rek comme da ndab li bëggatoo cee lekk. bul xaar ñu wit ci sa loxo di ko sànni. waaw léegi moom mbirum. Pisama. de waaw Pisama Gueye. Eh, moom waxul Pisama Ibi lay wax. non defal naa tamit que moom moo nekkoon ministre bi. waaw mais waxul Pisama. <laughs> nga ne nekk moom kii lay wax fu nekk Ibi lay moom mën na wax ne ne yëgul ne ne moom kañu jox. Pisama mu gagné marché 15. agent de voyage la waaw moom mën na mën na wax ne. est-ce na ko. ça peut lui échapper yëgu ko ça peut lui échapper dañ ko liggéey. waaw baax na kon dafa foogoon ne parce ni non attends non parce que da ngeen di mais lii dafa sérieux parce que. te respirateur ñëw te respirateur yi ñëwul de doomu aadama. Ah, moom mu nekkoon à l'avant-garde de ce combat là. contre boo xamante ne nii lu mu def ci ay ravages kenn xamu mu toll. waaw ñu ñëw mais on nous yoo xamante ne nii dans le rapport. mais boo ko xoolee. da ngay xam ne est ce que yow da nga bëgg wax ne kii warul wax. Oh, waaw. <laughs> mais moom bu idi waree dem ta tamit moom bu idi waree dem tamit moom it il doit des comptes aux Sénégalais. très bien.

alors projet bi nga xam ne ñii nag li leen taxoon a jóg moo di yëngal réew mi attentat la ñu bëggoon woote du samay kàddu enquête moo ko wax ndax nag yëngal euh, réew mi ci jour bi nga xam ne mooy appel Ousmane Sonko ak nag euh, Mame Mbaye dañ leen teg loxo mu ngi nii. Euh, comment la sûreté urbaine a déjoué le projet de cinq personnes arrêtées à Malika teg nañ leen loxo sa Malika yéen ñi nag le temps presse en tout cas lu mu ci manti doon mooy Karim Meïssa Wade Khalifa Sall fi mu nekk nii nag nee nañu luy jot jot na gannaaw dee. boo leen jógul nag yéen di ngeen doon. ah dee dee kenn kenn du dee kenn du dee. li jot jot na gannaaw dee sinon rek duñ bokk du nekk candidat. dem leen bind bi non kenn du dee. l'observateur dafa ñëw ci prévention si <laughs> inondation yi. dur les réalités du terrain en tout cas ministre Issakha Diop nee na mu ngay dalal xel yi euh, benn gox duñu ko bàyyi lépp luy matukaay dinañ ko jël ngir nag bu tawee ba sëwet. doo leen sonn ci ndox mi. l'inquiétude des populations sinistrées euh, sinistrées en deux mille vingt deux ndax nag la woon ba léegi mi ngi fi ah. Mm. boo seetee ba léegi ñu bu yebb yebbalee rek daanaka dëkk yëpp guus mais li ma jaaxal mooy fi nga xam ne ndox maa ngi fa ba léegi ndaw tawum daawaati géej wax ma daaw de bu daawaati géej mi ngi fa est-ce que ñoom jël nañ ko en compte nañ ci bàyyi xel parce que boo nee leen liggéey ngeen liggéey ngeen bu tawee ba sewet dinañ xam ndax liggéey ngeen liggéeyu leen. très bien. ñu jeexalee Oja. Oja ngi noonu si écran bi. anam ah fii lañ ma ko jox. Mhm. Oja de moom oto kii la jël oto euh, euh, euh, F24 destination février 2024 en tout cas troisième mandat troisième candidature moom mi ngi ci otaam di doxal jëmal février 2024 waa force bii ba ngi ne parce que ne taxaw nag di ko yënd boor bu nekk ngir bañ mu jàll. ndax oto président Macky Sall dana jàll na oto Abdoulaye Wade jàlle woon. am boobee nga xam ne ñu ngi ko doon wax doo fi def troisième mandat te mu mujjee jàll rek ndax bii la même chose. non mais c'est le temps c'est le peuple qui a tranché. spectaculairement le peuple a renvoyé au second tour les deux qui ont fait campagne. ah ñaar yi notamment di ngeen am temps. campagne doo jàll. notamment celui du troisième mandat. il est au deuxième tour. mi ngi ani moom moom ah, mi ngi ah, ci jaww ji. dafa umra ci waaw aywa mi ngi noonu bokk na ci li gën a fës ci bopp xibaar yi Mbaye <laughs> la ca gën a fës moo di tey jii nga xam ne ci wàllum yoon ñaar ci ay procès en appel la ñu am ba sa njëkk moo di Mame Mbaye Niang Sonko tey ji saltine ji la ñu siy sëggaat beneen dossier bi moo di ñaari député yu PUR yi nga xam ne moo di sambax Samb ak Mamadou Niang jëm ci mbiri Amy Ndiaye ñii daa daañu waxtaane it F24 mouvement des forces vives de la nation bi nga xam ne door nañu ko niki démb samp nañu ko euh, si euh, démb nag cérémonie bi si lañ doon dajale ay signature yi nga xam ne moo di leader wala responsable yi nga xam ne ñoom ñoo ci bokk te ñu fare ci opposition bi ëpp nañu ay téeméer ci entité yu fare ci opposition bi nga xam ne seen bëgg-bëgg moo di président Macky Sall candidature am boobee mu bañ a jàll ñàkkum kaaraange sàcc mu nga xam ne moo fa sàcc yu dikk seen i loi waaye it wàllum set ge xaydi gi mbënd mi nga xam ne moom mooy yoot en tout cas de askan wa yeewoo scat urbam lii la ñuy dund sa commune bu euh, Grand Yoff la looloo sabab soxna yi dëkk ca gox ba daal di dajale euh, seen i euh, péti seen i signature def pétition jébbal ko teg ko ci euh, table sous préfet bu Parcelles Assainies Sadias foofe it askan wa jàppale ne kon doxub ñaxtu la ñu woote doxub ñaxtu bi nag pacifiquement la ñu ko def ndax dañoo gis na seen i suuf ñu ngi koy caxat-caxatee te ñu ngi ko bëgg a ci ay projet yu nga xam ne yu nguur gi la pôle urbain bu dagg Holpa nag poor bu Ndaayaan loolee la ñu bëgg mu dàkk euh, daan jeexaleex li yéene kaay xëy fësal mantulaay ci bundooy ngeen taaxir lu ñu xuusi faram-fàcce gànda Seex Simon Fay ma Madou Fofana dees naka door procès bu njëkk bi tey jii Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko procès en appel tey jii si altine ji lay doon mu mel ni kon euh, euh, premier jugement ba Ousmane Sonko dañu jàppoon ne ko la ñu ko toppee moom moo ko def yëkkati ay xibaar yu wérut teg nañu ko woon daan lu tolloo si ñaari weer yu nga xam ne du ko tëdd waaye it ñaar téeméeri millions yu nga xam ne ni ab la mu waroon ko jébbal euh, partie civile bi tey jii si altine ji ba tey beneenu procès ni ma leen ko waxee moo di bu dox diggante ñaari député yi di PUR bu di Massata Samb ak Mamadou Niang seen diggante Amy bi seen naataangoo la woon ñoom it tegoon nañu leen daan juróom benn weer yu nga xam ne nii juróom benn weer yu ñuy tëdd la euh, ñu toftal sa kon sursis maanaam duñu ko tëdd ba noppi it euh, gannaaw ba ñu dooree woon seen naataangoo boobee sa assemblée nationale ci ab plénière fàtte xaju fi ñu ànd see Fatou Lay Mbaye conseil yu bokkul ñaari verdict yu bokkul ay membres yu bokkul ci même coalition Yewwi Askan Wi war a taxawaat tribunal ci même jour bi mu doon ñaari député yi bu PUR bu Massata Samb ak Mamadou Niang ñu tëj leen euh, six mois de prison ferme euh, depuis janvier ba léegi ngir nag ne dañu agressé seen collègue Aminata Ndiaye bokk ci mouvance euh, présidentielle ñoom ñi ne nag mujj daal di interjeté appel kii di leader bu PASTEF du Ousmane Sonko moom itamit membre membre bu Yewwi moom ñu condamné ko eh, ci ñaari weer ak sursis ngir wàllu domage ak intéret mu daal di war a fay eh, ñaari téeméeri million ci sunuy koppar moom nag dañu ko toppee ab diffamation eh, ci kaw kii di Mame Mbaye Niang décision neexul benn yoon procureur bi tax nag mu ànd ceex mambayñon Mbaye Niang daal di interjeté appel ci lundi ji nag dina am solo loolu ngir nag waa membre yi Askan Wi niki ñaari député pur yi ak leader bu Pastef Fatoulaye Mbaye Diop mouvement force vive de la nation F24 la ñu ko tuddee démb la ñu ko taxawal muy ay euh, kuréel gu nga xam ne ni maanaam coalition bu ëmb téeméer wala lu kopp sax euh, si ay entité yu nekk ci opposition bi seen bëgg-bëgg bokk na ca candidature bu Macky Sall mu bañ a jàll F24 mu mel ni kon nag euh, dafay dëgmal présidentielle bu février 2024 démb la ñu ko woote fii ci diwaanu Ndakaaru donc sa dajale ay signature sa ña nga xam ne ñoom ñoo ca bokk te ñu fara ci opposition bi bokk na ca Bougane Gueye Dany président président bu mouvement euh, gëm sa bopp plateforme boobee mën na ñu wax ne woote nañu ab rassemblement bu mag ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru mai ak nag ay manifestation ñu fëskee naa amal ci gox yeex gox goxaan yi ba sa diaspora ba opposition bi seen mot d'ordre bi moo di euh, ñëpp nañu takku taxaw ngir na jàkkaarloo président euh, Macky Sall candidature bu président Macky Sall boobee sax la ñuy waxtaanee section féminine bu parti bii di LDR yeesal bu Modou Diagne Fada dañoo gis ne opposition bi neexul ba neex waaye dañoo yàkkamti rek ndax coowal candidature boobee bàyyi mbili ji si boppam yooyu ci yàbbiw ci kon ñoom gisuñu lu fi jar lu fi ñor ba ñu koy ah, màcc nee nañu nag coow lu jaru ko bu sukkandikoo ci jaar jaareetu ah, Mangane président bu section féminine bu LDR yeesal ñu teewlu ay kàddoom. ndax ki mu directement muy le candidat le président de la république le président Macky Sall waxagu ci. te joxewul ndigal pour nit ñi wax ci donc jàpp naa ne ñun alliés yi ñu doon tey bu ñu taxawee ne dañ siy wax dina nekk loo xam ne day nekk de manière précipitée te nekkul loo xamante ne mooy sunu yoonu parti donc loolu noonu day day yàkkamti lool pour ñu wax ci dañuy xaar le président Macky sàll moom mu mu sànni ci kàddu comme ñun nag ci réformateur ci les démocrates réformateurs la ñu bokk dañuy déglu sunu kilifa sunu sunuy kilifa seeni wax incha allah ñoom lu ñu ci wax rek ci loolu la ñuy ànd di respecté tamit choix wu le président Idrissa Seck aja ma ngoog Mamadou Fofana est-ce que tam xel ndaw si li mu wax euh, enwul maana ndax ka nga xam ne mooy euh, président Macky Sall yooyu yàb bi ba léegi jëm ci candidature mais wala acte yi mu posé da koy firnde non kii kii di wax nii moom xanaa beneen réew la ne ah, ah. yow leer na leen ne Macky même bu waxul li ñu bëgg a dégg wii wala noo gi même bu waxul loolu wax na leen ko kay mu leer à deux reprises le président ci ay interview nee na juridiquement parlant troisième candidature wala deuxième quinquennat waxatuñ ko waaw loolu lan la kon lan lan lañ bëgg a dégg leneen lu dul loolu mooy damay def troisième mandat ah noo wax ma ba xam loolu du damay def troisième mandat loolu firndewul ne damay def troisième mandat nga ne nee na affaire bi nekkatul ci wàllum yoon <laughs> yow mi yaa gën xam na ne waaj day def day day foncé léegi nag moom bu ko neexee ñoom ñu toog taaxirlu di xaar Macky Sall wax lu officiel mais opposition bi amuñu di leen wax ban conduite à tenir waaw ñoom ñoo la gën a xam ne ne bu ñu réuniree leer na leen ne Macky Sall mi ngi rey defi troisième mandat candidature boog dina ko poser parce que troisième mandat leneen la léegi nag yow kay yow géreel sa na na tuddati say code yéen a ngi ànd ak Macky Modou Diagne Fada ca la bokk nekk directeur général sonakos yow kay àndal ca la ngeen di ànd mais lu opposition bi di xeex wala booloo taxaw ñoom it pour ne lii du fi am amul kenn ku leen mën a dicter la conduite à tenir am nañ ci droit xam nañ ne waa ji ak li mu posé ak fa mu jëm ak la mu wax lépp ci ay interview wax ji nopp yu wér yu wérut yépp a ci bokk yam c'est clair limp et limpide mooy wàllum troisième mandat gi gars yi xam nañ lu tax ñu di ko xeex parce que xam nañ ni Macky Sall a été très clair troisième mandat da ci foncé Mhm. alors est-ce que ça augure euh, euh, euh, lu nga xam ne ni peut-être xel mën na ci daal bu ñu jàppee ne kon ñoom président Macky Sall fi mu taxaw fëskee ne fu jóge dafay dem F24 taxaw na ne troisième mandat du troisième du fi am parrainage bi dañu ko war a dindi ay article ñu sudi que dañu ko war a dindi est-ce que fi ñu jëm ëllëg jarul xoolaat si moom si si parce que boo xoolee ni situation bi di demee nii ak peut-être liñ ciy envisager bu fekkente ne li ñuy bañ ñoom ñëpp moo nar a am. peut-être mën na indi tension. Euh, mais man damay damay damay xoole feneen. Mm-hmm. M23 ak fi mu mujjee. Mm-hmm. M24 ak fi mu mujjee. wala mm-hmm. boog fa mu bëgg a yegg. nañu moytu te jàng ci erreur yi amoon ca ay jamono. peut-être buñ ko defee dinañ ko réussir. sànq maa ngi junj ne bu dee seen combat dafa nar a yem rek ci tere Macky Sall mu présenté wu. Mm. amaana yeneen combat mën na leen rëcc. mais heureusement peut-être ci biir chart bi jël nañu lu jëm ci code électoral bi jëm nañu jël nañu lu jëm ci ay parrainage ak yooyu parce que looloo fi ne mais coow lii lan moo ko waral amoon na fi dialogue politique dialogue politique boobu pour man moo échoué. Mm-hmm. ba tey jii ñuy gis situation bii nga xam ne moom la ñuy gis. war a dem nag à la limite vers l'inconnu parce que xamuñu li nar a ñëw ci kanam jaloog boobee lañ ca waroon waxtaane peut-être waxtaane wuñ ko ba mu doy wala dañoo yàqamti woon fënatal yenn question yi wala la intéressé woon gars yi parce que ñu ngi doon viser ay élections locales xëy na moom la ñu gën a fësal mais on s'est rendu compte que finalement am na yu bëri yoo xam ne fàtte nañ ko. Mhm. am na yu bëri yoo xam ne négligé woon nañ ko wala sóoraale wuñ ko woon mu ñëw nag ci lii. parce que mbirum troisième mandat bi damay fàttale ne à peine Macky Sall faluwaat en 2019 que question troisième mandat commencé posé wu. Mhm. et Fofana wax na ko sànq. parce que il faut également comprendre les mots mandat mooy buñ la falee ba pare la. Mhm. fala sa mandat di commencé. candidature. mooy nga samp sa ndënd samp nga sa ndënd ak yéene ñu fal la mais bu buñ la falul mënoo am mandat mhm. donc foofu loolu souvent terme yi di xawee indi de débat di wuute bu ngeen bàyyee waa ji mu présenté wu mën na fa jaare amaat beneen mandat yéen nag bu ngeen ne contre un troisième mandat ça veut dire que nangul ngeen ko mu mën a présenté wu mhm. donc il faut faire attention mhm. mais erreur ya woon buñ ca jaaraatee amaana F24 bii tamit xëy na dina échoué ñaanuma mu échoué yaakaar naa ne peut-être dinañu yegg fa ñu bëgg a yegg mais lan lay doon comme avenir parce que waa waa waa waa yeesal ndaw si wax na ko Macky Sall ci boppam waxagut ñoom nag peut-être xëy na dañoo dañoo dañoo xaw a toogee toogaayu euh, euh, élève ci biir classe mhm. toog jàpp seen njàmbur loolu mën nañ ko wax. Mhm. mais ku ci nekk également ak sa lecture voilà. nañ ci bàyyi xel bu baax ay ayca tournée politique la woote sa département bu Sédhiou muy président parti jiite wareef le devoir en mouvement noonu la ko tuddee dañoo mer bu futu nag jëm ci jàpp mu sakkan bi ñu nemmeeku jamono ji ci yenn ci ay euh, doomu aadama nga xam ne saa su ne ñu ngi lay teg loxo caab di leen feeti ginnaaw Alassane Niang candidat la en tout cas annoncé na candidature ci présidentielle février 2024 nag faw pouvoir judiciaire et ku si nekk xam fa nga yem te ñu bañ a instrumentaliser suñuy institution sa Sédhiou ñu fekk fa Ibrahima Diallo. Alassane Niang nekk leader parti bile di jiite Wareef le devoir en mouvement nekk candidat déclaré ci présidentielle bu février 2024 bu ñuy dëgmal bu muy càmbar mbirum arrestation yi ñu nemmeeku ci dëkk bi xam ne na ni ñi di waa pouvoir judiciaire ak waa pouvoir exécutif dafa mel ni xamuñu fu ñuy teg seen tànk. li ñu gis fan yi tamit muy ay arrestation tous azimuts euh, ku mën sa morom duma état bi nga xamante ne moom moo yor ngannaay yor li ñu wooyee la violence légitime au lieu mu koy exercer de façon légitime et de façon légal mais dañu gis ne dañ koy teg di ko jaay di ko teg ci kaw ay doomu askanu Sénégal loolu nag niñ ci mën a génnee mooy li jiital ba maanaam am justice bu indépendante boo xamante ne dañ koy tëggee ci ay anam yoo xamante ne suppression ministère bi lay laaj. ci tournée politique bu mu doon amal ci région bu Sédhiou ngañ na tam mbirum dool bi nga xamante ni nekk na lu farankulaay ci diwaan bi bile. Sédhiou dafa bokk ci région yu gën a ndóol biir Sénégal euh, ndax situation géographique am waaye li nga xam ne moom la état bi waroon def ci biir région bi defuñu ko. dañuy xool Sédhiou lan la am ci wàll potentialité. nga méngale politique publique yi nga xamante ne moom nga ko war a jox en fonction donc de ses potentialités. ci kàddu tukkee ci leader parti jiite Wareef xamle na ni pour stabilité am ci mim réew faw ñu bàyyi li nga xamante ni loolu mooy instrumentalisation suñu institution yi. moom Mamadou Fofana certes droit am la ku si nekk sa droit la nga samp sa nënd bu fekkee euh, li muy laaj am nga ko waaye nag bu ñu fàtte ne moment yi toll nii ku euh, candidature bi ne dinañ ko gis. <laughs> nga tax a jóg aussi. waaw xam nga man am na ci yoo xam ne question de principe la du ma ci. du ma ci mhm. du ma ci du ma ci. non am na ci droit moom pas moom. droit ku nekk am nga droit sa réew boo mottalee bien sûr lépp lu ñuy laaj pour nga mën a nekk candidat nga mën a nekk candidat. Mhm. mais tamit réew mi nañu jàpp ne ëpp na nekk quand même di ko foowee. wala di am gis-gis yoo xam te ni leer na la ne yow munoo puus munoo paas. Hmm. je comprends nag moment la boo xam ne ne ay alliance ñooy formé wu gaa ñi ñii dañ ciy boole régler seeni problème ne ñu ànd bu ma la jàppalee nga falu boo faloo nga sédd ma hmm. ñii déclarer seen candidature pour yéegal enchère yi ñëw ne la candidat la léegi lan nga mën a teg ci table bi pour ma mën a reculer bàyyi la nga dem. Mhm. donc ku ci nekk ak li nga xam ne ne moom moo la tax a jóg mais réew mu toll nii Sénégal ñu war a construire ba léegi parce que ñun attention ci construction nañ toll Sénégal am na certes ay acquis mais ba léegi nii dañuy jàpp ne pays sous-développé la Macky day def lu mu mën. Mhm. ñi ko fi jiitu def nañ la ñu mën maintenant. donc lu ñuy gën a dem enjeu yi day gën a met parce que nous sommes dans un monde très sélectif et compétitif. Mmh. donc dëkk bu ci sàggan yëf yi day gën a métti ci yow. maintenant kan moo mën a nekk leader boobu nga xam ne ne moom mooy mën a porter les aspirations des sénégalais muy lan vers le développement ban leader moom mooy am lépp li nga xam te ne nii tey soxna lañ ko ci njiitum réew pour mu mën a doxal réew mi. ci mu tegu ci li nga xam te ne nii moom mooy dëgg moom mooy yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey du fi am fi nga xam ne dañuy bafouer les libertés individuelles et collectives li nga xam ne moom mooy jëm ci ay tëjum tijji li jëm ci wàllum ay menaces ay xoqatal sa sa sa sa askan ak di jaay doole beneen bi di nga mën a am capacité managériale yi nga xamante ne nii di nga mën a quand yóbbu réew mi fi nga xamante ne nii fa nañ ko bëgg ak bien sur en toile de fond mu di vision bi nga xam ne moom nañ soxla donc njiitum réew nekkul ay caaxaan. e loolu il faudrait que askan wi bàyyi ci xel bu baax a baax. ku mu neex nag mun nga jóg jàkka jaa ngi noonu noddal mais le dernier mot qui revient au peuple sénégalais bi nga xam ne moom moo souverain il faudrait que ñu xam enjeu yi nga xam ne ne moom moo nekk suñu kanam tant que loolu defuñu ko suñu xel def ko ci xelu ku ne pour ñu xam ne ne réew mi il faut ñu teg ko ci loxo yu baax yu wóor yu sell yi nga xam ne moom moo ñu mën a jëmale kanam bien sûr ak pétrole gi nga xam ne ak gaz bi am nañ ko te mu indi ay jafe-jafe ci dëkk yu bëri partenaires yi nga xam ne ñi ngi taxaw contrat yi convention yi nga xam ne ñi ngi koy signé il faudrait véritablement ñu mën a am ki nga xam ne moom mooy porte loolu te mu nekk lépp ci intérêt exclusif des sénégalais. ñu waxtaanee askan wa yeewoo CS 4 Urbam commune bu Grand Yoff ñoom ci ay jafe-jafe la ñuy dund jamono ji euh, ñoom nee nañu nag jël nañu dajale nañu ay signature mu di pétition teg ko si table sous préfet bu Parcelles Assainies euh, la leen metti nag moo di ñàkkum kaaraange ga ñuy dund sàcc gu metti ga ñu dëkkaale waaye it wàllum xaye di gid assainissement inondation bi njort ne ñu kon bu tawee dana fa am looloo sabab soxna yi si boppam wooteeb ndaje ne kon nag loolee faw ñu taxaw ci euh, jële fa lu ni mel Sénégal Alassane Balde ci ay leeral. quartier fii ci diwaanu Grand Yoff am ay jafe-jafe nag rawatina ci biir nawet moo xam ndox yu bon wala sax ndox yu walangaan ci koñ ba rawatina mbalit beeg ñoomin seen lépp dafa daal di gàllaa ñëw ci jamonoy nawet wala ñu yëkk seen kàddu ngir artu autorité yi parce que ndoxu taw bi dafay ànd ndoxu foos yi ah, envoyé jàkk ji daaw gis ngeen ko wane nañ ko tapis loolu mooy le problème crucial bi assainissement bi noonu it yeneen jafe-jafe ñoo dolleeku si lu ci mel ni ñàkkum kaarangeeg ñoomin seen agression yi bari na yi nag sàcc yi bari mooy problème mu tali amatul tali Scat Urbam amatul tali mooy les transports urbains ci biir koñ yi jaar di dugg oto yi di fiir suñu doom yi. nag bootu ci ab association nag ci bi ñuy cérémonie religieuse nag xamle nañ ne daal nañu déposer ab pétition ci table sous-préfet bu arrondissement bu Parcelles assini ngir mu mën leen jàppale fi rek loolee ñu indi saafara ci yooyu la jafeeñ jafeñ. voilà Simon même bu dul scat urbain sax bëri na si ay gox yu nga xam ne ñu ngi dund lu ni mel te fu mu nekk nii ñu si bëri nelawatuñu ndax nawet bi di waaj a ñëw nawet baa ngi ñëw ñu bëri duñu du ñu nelaw parce que ñu ngi xalaat bu tawee non seulement seen kër yi mais mbedd yi parce que yenn saa yi ndox mi da lay tëj de sorte que yow da ngay nekk ci jafe-jafe hmm. waa scat urbain nag ñoom situation bu bu bu métti la ñuy dund parce que ku xam zone boobu xam ne presque tali bu baax amu fa donc tali bu baax imaginer kon ne assainissement tam amu fa Mm-hmm. assainissement amu fa ndox yaa ngi ca mbedd ma wala ñu ngi koy tuur ci anam yoo xam ne jekkut parce que askan wi amuñu pexe mm-hmm. heureusement nag bi mu nekkee ay jigéen porter le combat jël initiative nekkoon nañu dajale waa gox bi wax ne suñu jafe-jafe yii la ku ci ànd nga signé et j'imagine que pétition boobu xam naa presque gox ba yëpp signé nañ ko mm-hmm. léegi nag mu des bu yeggee ci sous-préfet ban solution lañ leen mën a indil parce que yooyu am na trabo yoo xam ne mairie attanu ko mairie Grand Yoff mënu ko parce que bu mairie Grand Yoff mënoon Grand Yoff de manière générale ba a limité wu rek ci Scat Urbam. Hmm. parce que lii Scat Urbam di vivre parce que moom la ko ñu Grand Yoff yu bëri. yëpp di dund. Hmm. donc mu nekk liggéey boo xam ne commune bi kese mënu ko àttanu ko donc c'est relève maintenant di domaine de l'État te État bi gis nañu feneen fu mu sooxe. état bi gis nañu leneen fu mu def leneen te amaana solution bi ñu ci doon séntu gisuñu ko parce que investir nañu ñu ne milliards yu bëree bëri ci banlieue bu ndakaaru nga xam ne inondation daawoon na sonal askan wi. Mhm. peut-être am na foo xam ne tànnee na mais saa yu tawee tu as l'impression que li ñu defoon presque indiwul solution léegi nag ban solution la waa SCAT URBAM mën a am. loolu nag mi ngi des ci kilifa yi parce que il faut quand même une réelle volonté comme nag jóg nañu ba dem ba sensibiliser lu sous-préfet xëy na sous-préfet tam dina wax ak kilifaam kilifaam yeggee ko beneen kilifaam bu ko gën a kawe mais bu boobaa est-ce que tam fii nawet bi dinañ ci am solution. lu am solo. est-ce que fii ak nawet bi dinañ ci am. solution wóorugul xëy na solution bu naree am peut-être dans les années à venir mais fii ak nawet bi li ñu mën a def. peut-être mooy xëy na nettoyer yenn koñ yi ba ndox ma bu ñëwee même bu fa toogee amaana du fa yàgg mën na demal boppam mais buñ ko deful nawet bii di ñëw problème lay doon. lu am solo Mamadou Fofana banlieue bi gis nañu kon campagne pré-hivernale souvent dañu koy rek mais du fa am bu fekkee am na it du ñàkk wala sax du tere euh, mbënn mi bu ñëwee faaw faaw faaw rek euh, askan wi sonnati. waaw <coughs> man de xaw ma Isaaxa Diop moom yow bañ la falee léegi yàggul. Mhm. nga hérité loo xam te ne nii moo gën a compliqué te gën a métti gën a doy waar muy wàllum inondation say prédécesseurs jéem nañu mais mënuñu régler le problème comme ni ko nit ñi bëggee yow nga taxaw ne wuy da ngay def la job benn localité duñ ko négliger ainsi de suite man bu doon may moom hmm. te comprendre défi bu nekk ci wàllum inondation sama wax du ci bari xam nga nu may def liggéey te xaar mu taw ñu évaluer su boobaa parce que taw bi rek moo la mën a juger doo teel a wax oui doo te lu tax teel a wax pour wane ne maa ngi liggéey loolu kay soxlawul et puis loolu nañ la fi tege bu tawee nag ba nga évaluer ba xam su boobaa ci ngay mën a xam travaux yi ngeen def yi baax na wala baaxul s'il y un besoin de se réajuster yan point ngeen war a gën a mën a def seeni doole mais man génn pour wax ne ne wuy maa ngi liggéey loolu amul sens mhm. beneen bi bul fàtte ne inondation yi plan décennal de lutte nañu wax donc ça fait plus de dix ans ci nguuru Macky Sall ñi ngi xeex wàllum inondation mais tey lan mooy résultat bi ba ñu defee commission d'information bi nga xam ne moom moo am à l'Assemblée nationale bien sûr à la place d'une enquête parlementaire mais lan la gars yi gis ci ba ñu demee dans les localités mais lañ fa dësale ci ay jafe-jafe kenn xamul lu mu toll ay manquement yoo xamante ne nii xaalis bi dekeese nañ ko waa ji yeggaliwul travaux yi kii tàmbali na yeggaliwul mais jusqu'à présent sept cent et quelques milliards yoo xam ne bañ ko évaluer li ci ëpp xam nañ ne xaalis bi ñoom ci seen bopp les parlementaires reconnaître nañ ne am na ay difficultés Pape Sagna Mbaye ministre de la pêche moom moo ko jiite woon mm-hmm. waaw léegi kon munoo fi taxaw wax ne ne yow mun nga fi régler loo xam te ne nii ci dix ans régler wuñ ko donc li gën a am solo moom mooy travailler pour ñu xam ne ne yéen a ngi liggéey lu koy waral mooy bu tawee nit ñi mën a nekk ci jàmm mais quand même pour faire du populisme woy maa ngi liggéey jàpp leen ne ne lu bëri dootul mel na mu meloon loolu ay waxi caaxaan la aca ñu waxtaane kon député Bassirou Samb sax nee na foofee sa Grand Yoff faw nag wàllum assainissement bi ñu daal si say wax ndax bëri na fi ay ndox yu nga xam ne mu ngay ball ca mbedd ma te loolee daf faa war a mën a jóge nag Bassirou Samb yëkkati ay kàddu euh, si ab ndajem jàppal ma jàpp bu nga xam ne ndaw yi tailleur yu nekk sa marché Grand Yoff ko organisé woon ñu teewlu ay kàddu Maxala San Balde loolu nag mooy jafe-jafe bu mag bi euh, Grand Yoff ndax bi day ball nawet ak budul nawet foo tourné ndox la donc ñuy ñaan waa ONAS ñu jàppale askanu Grand Yoff parce que nag ci ndoxu ndoxu ndoxu fossé en tout cas ñi ngi ñaan directeur ONAS ak ay technicien am ndoxu foos neexut a dunde ndoxu foos dafa metti donc kon nag foog ñu ñëw jàppale askanu Grand Yoff parce que dund ak ndox bi jafe-jafe la boo xam ne ñëpp xam nañ ni nag gestion assainissement du commune Grand du commune mais état moo koy gérer à travers l'ONAS sa la ñuy wutali askan wa féete sa mbuur doxub ñaxtu la ñu woote ñoom ñooñee ci boppam wala sax jas sa sa mbuur la féete doxub ñaxtu la ñu woote dañoo gis ne seen i suuf ñu ngi koy caxat-caxatee da dañu koy jaarale ci ay projet yu nguur gi am bokk na ca dàgg xolpa euh, pôle urbain bu dàgg xolpa pôle bu ndaayaan askan wa nag nee ñu seen suuf soosee la ñu am te nag buñ ko jëlee sax ndàmpaay lañ leen jox daanaka du ko jar musa Diouf yor seen kàddu ñu teewlu ko Aline Badara Sonko mooy ay port bi nga xam ne indi ngeen ko fi ñuy bëgg a indemniser population yi ay deux cent mille francs ci parcelle lu vingt deux cent vingt cinq mètres carrés loolu tamit nekk li nga xam ne président de la république mu ngi koy dénoncer ñu ngi ñaan nga recevoir ñu pas nga envoyé ñu qui que soit soxlaatuñu pour wax ay ministre soxlaatuñu pour wax ay DG mais le président nous vous demandons de recevoir la commune de Diass la population de la commune de Diass ñu wax ñu suñuy tawat parce que mooy ni ma la ko waxee sànq ñu ngi dem ci ay échéances le pire le pire moom nga nar a gis fii nga xam ne mooy commune de Diass ku la garanti ne mën nga fi am dara ci élection yi di ñëw wala ñu mel noonu te problème ñu nekkee nii woowoo ñu ñu toog ñu waxtaane ko xamal ne mu ngi lay garanti loo xam ne nekkul lu taxaw parce que maire bi fi nekk ko kaddu population dañu regretté li nga xam ne moom lañ ko fale woon fii muy maire bi fi nekk muy Mamadou Ndione te ku la gëm population bi adhéré na ci loolu jàppal ne nitam ay militants lay manipuler di leen waxloo di leen yónni pour ñuy wax ci turu nit ñi pour gëmloo leen ne loolu tuuti est ok rien n'est ok parce ñun d'accord ñu ci projet Paul Daga Kholpa d'accord ci tey d'accord ñu ci ëllëg. mu ngoog souvent euh, projet état yi bu ñu demee ci gox ya goxaan yi war fa jël suuf askan wi seen jàmbat bu njëkk moo di wàllum ndàmpaay bi lañ leen di jox dafay néew lool te ñii bokk na si li ñuy jàmbat Simon. xam nga tubaab bi dafa ne loo may defal man. ngay jëf te yëgowoo ci ak man waxoo ma ko mm. Mm. la ngay def contre man la pour man donc souvent problème bi foofu lay doon est-ce que jël nañu suffisamment temps mm-hmm. toog ak askan wi expliquer leen projet yi ci la ne parce que bu dee projet la dañuy njort rek ne lu baax la mm. lu baax la te askan wa mën na fa mën na cee jëriñoo gox ba mën na cee gis boppam mm-hmm. mais est-ce que expliquer na ni loolu yëpp askan wa fa yeewoo est-ce que expliqué nañ ko béykat yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoo moom seen tool te lu ñu amee ci teraanga tool yooyu lañ ko jële souvent problème bi yëpp loolu la. da ngay gis projet boo xam ne état bi daf koy yëkkati topp ba ci jóge ci gouvernement ñëw ba ci administration administration bi war a gérer le reste sur le terrain wala ministère yi. Hmm. mais après nga gis askan wi jóg ne lii du fi amee. wala lii ànduñu ci. lii def ñu yàqal est-ce que étude ya ca war def nañ ko est-ce que pencoo nañu ak askan wa xamal leen la ca ne. bu dee am na xeetu gàllankoor yenn yi xeet am na yoo xam ne mën nañ ko lijjantee foofu wala yenn yi ñu xool nuñ koy gérer ba ku ci nekk kenn bañ cee loru souvent loolu moo dul mate. Mm-hmm. te mbirum suuf ñun fonk nañu suuf fonk goo xam ne ku ñu nar laal sa pàkk wala sa ab tool nga jóg yuuxu. Mm-hmm. loolu moom. Sénégal la parce que ñun dañoo fonk suuf mais état bi tam bu soxlaa na ko jaarale ci yoon état bi bu soxlaa askan wi souvent du ñu bañ de mais lañ leen di proposer tegal leen ko à côté moom la ñuy xeeb yaa ngi dégg ñuy wax barème d'indemnisation bu dee par exemple ñaar fukk moo jaadu pour ñu dàmpee la à la place de ñaar fukk boobu ñu jox la ko fukki dërëm wala juróomi dërëm mais da ngay bañ parce que valeuru tool mënoo ko natt tool boo xam ne loo ko jox ak ndaw eh, taw sunu borom taw bi bu barkelee nga am ci gàncax gu ne gaañ nga mën cee dund ay weer wala sax atum lëmm. Mhm. mais bokkut ak xaalis boo xam ne dañ la koy jox léegi léegi dàmpee la ko jël sa suuf boo gessoo dugg ca boutique ba xaalis ba jeex na. Mm. donc souvent problème bi foofu lay nekk ñii état bi di yónni ñuy dem di lijjanti projet yooye di ko indi ci ay gox-goxaat nañu xool ñoom li jaadu ñu def ko. ko fii projet boo yëkkati ci li ëpp. balaa projet ba commencé ay indemnisation ay dàmpaay ak yooyu compense nga dégg coow. Mm-hmm. loolu ba kañ. doy na waar mu nga kon du Faw dafa mel ni kon ni ko Simon waxee étude de faisabilité bi foofee la ñuy njëkk raté maanaam dem ci kan wi toogaax ñoom wax leen lan mooy projet bi euh, ñu euh, mën cee gën a gindee ko souvent foofu lay foofu lay foofu lay raté. oui euh, <coughs> am na loo xam ne quand ñun ñii di di wax te ñuy déglu. Mm-hmm. il faut faudrait que tamit ñu ciy dimbali askan wi di leen ci leeral. depuis 1964 sama suuf amatul. lépp domaine national la. sama suufi maam. domaine national la bokk. léegi nag amul ne ñii dañu fi war a am ñii mënuñu fi am ñee mënuñu fi am sénégalais sénégalais la tudd. Mhm. loolu benn la. ñaareel ba suuf si état moom moo ko moom mais la ñuy wax moom mooy wàllum suuf si kenn waru ko jël di ko jaay. Mhm. les terres sont inaliénables. constitution bi moo wax loolu noonu ndaxte suuf askanu Sénégal ñoom ñoo ko moom mais bien sûr ku koy gérer état bi la. Mm. bu projet amee état bu soxlaa. day jël loolu tamit il faut mu leer ci askan wi ñu leeral leen ko bu fekkee pour des travaux d'intérêt public loo xam ne ñépp a ko bokk état bu soxla mais day da koy jël mais même buy jël waaw non xaar fa jëm si ak xaar rek fa laa si mais buy jël tamit day dàmp ñi nga xam te ne nii fa ñuy def projet bi wala lañu soxla ñoom ñoo fa nekk mm-hmm. mais dàmpaay bi li ci ëpp gis nañ ko moom mooy indi problème donc cela veut dire quoi cela veut dire am na ay effort yu ñu war a def à ce niveau la pour que muy bañ di am problème entre ñoom ak ñi nga xamante ne nii lu ci ëpp ñoom euh, euh, euh, fa ñuy bëgg projet yi dafa am ñu fa dëkk mm. ñii dañuy jàpp dañ leen sous-évaluer ñii dañuy jàpp ne ne dañ leen a bëgg a nax ñii jàpp ne ne ñoom comme ñoom ñoo fa nekk rek ala kulli alin waruñu fa jóg et day day day am solo ñu couper la poire en deux nit ñi xam ne ni suuf état moom moo ko moom suuf état moom mooy ki kay joxe suuf nekkul loo xam te ne ni kat da ngay ñëw rek parce que neex na la nga rëdd dëkk loolu benn la état bu soxlaa day ñëw jël mais en contrepartie da lay ndàmp ndàmp goo xam te nii dina la mën a utal soit foo dëkk wala mu jox la xaalis foo xam ne dalay wax kat demal nga uti feneen foo xam te ni fa ngay dëkk. Mm-hmm. mais nañuy dimbali askan wi également bu ñu demee ba di leen yëkkati nañ leen mettre ci condition yoo xam ne ne tegal leen xaalis boo xam ne ne parce que lu ci ëpp dinañ am étude boo xam ne day am ñu évaluer. kër gi xool ñaata la war a jar bu dee rez-de-chaussée la ñu xam bu dee étage la ñu xam. mais bu dee terrain la aussi ñu xam. ça lu am solo la jaajëf Mamadou Fofana ci kanam tuuti kon tës 89.7. jërëjëf incha allah ñu waxtaanee fii réew mi toll. léegi lay doon la maison Simon Faye. <laughs> rédaction la grande édition sur la 89.7 ñu ànd ak Simon Faye ci nasaraan ñu jeexalee euh, beneen gox bi nga xam ne moo di jaari Birane commune bu Thiamène Pass département bu Linguère école ba nga xam ne daanaka dafa ne woon fang mujj nañu ko nag utal mur de clôture ndax nag ndongoy ci ay jafe-jafe rek lañ doon dund ndax nag euh, euh, mala ya nga xam ne ñoo fa daan xar yéex ba yéex nag yi ñoo daan dugg ca l'école ba nu mu leen neexee euh, mur boobee juróom benn million la ñu ko tabaxee mairie ba dalloo na ko ñu ànd Cheikh Mass Ndiaye ci reportage Jéeri Birane di ab bu toll fan fanweeri kilomètre ak Linguère askan wa fay yeewoo mën neen waat bu baax a baax kuréel gi ñuy duppee SADES ngànk ay doomi Linguère moo leen may ab mur bu benn million koppar lii nag di yir ndongo yi. Euh, tey dañoo teewoon fii ci Jéeri Birane di fi inauguré benn miiru école boo xam ni des moo ko defal ak euh, waa Luna Noiba euh, miir bi nag defar nañ ko ci njëgu gu toll ci juróom benn million ak téeméeri junni ak fukk. SADES di wax ne vraiment nous exprimons notre satisfaction parce que bien avant mon arrivée avant ma fay ñëw ñoom daan fi œuvrer. des œuvres de bienfaisance. ñenn si askan wa profito si cérémonie bi ngir fesal seen i jafe-jafe. su ma yóbboo ne boobu tey jafe-jafe jógu fi bi gën a tar nag mooy ndox parce que ñi nga am benn tuyau boo xam ne six kilomètres la dafa jaar ci ay montagnes indiwul ndox tuyau bi amul ndox dëkk bi su ma yóbboo ne bu ñu xëyee dañuy ràng seen sareet di rooti lu war a mat six kilomètres den di wuti ndox. mooy dëkk bi amul courant. dëkk bi amul yoon yéen ñi fi jaar gis ngeen yoon bi nu mu demee. bu nawetee kenn du dem kenn du dikk. miir bu ñu mel dana aar elew yi. si bayi me yi fa daa tambal mbaal. saa bu ne. jaajëf euh, Mass njaay jaajëfal leen bu baax si teelu bii bi la jotaay xibaar fi la nu kàndaar keppe laata ñu koy yëkkati nag ñu àndaax mantulaay ci bundooy si li yéene kaay yi xëy fësal. kenn ñett du bëre turbine yéen kaay mel ni ku naan président Macky Sall waajalal ndax gaa yi nag def nañum say fi mu ne daal di dal sa kaw juug wala ab sëkk ñoo fas yéene nag dar dar rek yow président Macky Sall ne la troisième mandat am ci réew mi yéen kaay bi dee bi ne ma juug bi am na tur F24 lay wuyoo opposition bu réewum Sénégal nag ñoo daal di lëkkaloo daal di boole seen doole sabab gi nag du lenn lu dul daal di xeex président Macky Sall yéen kaay bi bi ne ma taxawal nañ plateforme bi ni ki démb Ousmane Sonko rek dem fekki Bougane ci boobule xeex xeex ba lu dul jam langal yi nga xam ne nguuru président Macky Sall mi ngi mun a ci F24 naan koon Sall génnal ci li nga nekk ndax fi mu nag ñi ngi sa kaw ñi ngi la tegu gët tribune naan maan gannaaw ban ko sosee ba nuppi waa F24 nag daal di xam le ni daañu amal ay manifeste yu rëy yu pata yu ngand ci réew mi lépp nag ngir gàntal président Macky Sall kub candidature am bés bi le jour naan maan fan ak ci weeru mai fas na nu yéene amaluk manifeste ngir candidature bu président Macky Sall bi nag du jàll te F24 mi nga xam ne daal dina fi jële M23 3 sabab gi loolu la de ne candidature Sall bii duñ ko nangu ci réew mi poussé nag président Macky Sall ba mu ne bàyyi naa jox keneen fexe it président Macky Sall daal di fi jëlee article 29 jëlee fi article 30 jëlee fi article 57 bu code électoral bi waaye itam président Macky Sall jëlee fi parrainage bi nga xam ne dara taxu ko jug lu dul segg ay nitam tribune yéen a naan maan la jaaxal gaay mooy ba nga xam ne waroon nañoo taxawal bi les plateforme waa parti a ne ko ma ne la lees waxu lañ ca de lan moo tax ñii ñëw ñu ci plateforme bii jaaxal nañu Walf Quotidien naan maan en tout cas yàqu ñu xew bi ndax fi mu ne nag ñëpp ne président Macky Sall doo bokk naan kon Sall waroo bokk te doo bokk ci réew mi Sud Quotidien naan maan réew mi tey jii day ñaari appel la ñuy daal di waxtaanee bu Sonko ak Mame Mbaye tam bu Amy Ndiaye ñibbi ak député yu pur yi lii tax Sud Quotidien naan maan tey altine dëgg moo nar am fii ci réew mi Sénégal réew mi Quotidien ma président Macky Sall ki gaayam daal di fatt fee bi daal di raxas capital bi ba maar day taali for lépp luy pëna gouverneur ne essence kenn du ko jaay ci réew mi ci biteel rax ci dolli daal di ne moto du daw ci réew mi Dakar dem dikk moom daal di ay busam l'observateur mel ni ku naan maan ñoo yey de ndax nag attaque boo xam ne ña ngi ko waroon amal ci cocktail molotov day l'attaque der yi daal di teg loxo ña ko doon def l'enquête quotidien ne ma ab projet de tenta kay la vox populi ne ma ñeenti nit daal dinañ leen ciy jàpp te sûreté urbaine ci boppam moo def lii ñan man yéene nag attaqué tribune yéene kaay naan man en tout cas ca procès boobee liquidation Ousmane Sonko gars yi nee nu moom lañ ci jublu waaye daal moom Ousmane Sonko mën na xam ne ma nga cab danger Abdoulaye Sow responsable APR ca Kër Massar ne xale yee war a yeewu xale yoo xam ne bu faatu jotee ñooy faatu bu gaañu jotee ñooy gaañu te buñ leen nee génnal ñooy génn xale yi ñoo war a toog seen i waajur téye leen Abdoulaye ne politiciens yi leen di jëfandikoo di leen génnloo seen i bopp dong moo ci nekk de te Ousmane Sonko nag bu dee dafa bëgg jiite réew mi koy woolu ci mbedd yàgg leen wax loolu ñaaw te nag dem wuy ji yoon mooy dëgg Abdoulaye naan ku ni leen dem leen yàq li nga xam ne liggéey nan ko ci réew mi bëggu leen waaye kooku it xam leen ni bëggul réew mi kàddu yi mu yëkkati ko gannaaw bi nga xam ne ma nga doon jox ndimbal askanu yëmbal Malika ak la ko war ci koor gii nga xam ne nekk nañ ci l'observateur naan maan loo ci man ci déggit Ousmane Sonko boo may tul du bokk source aane ko appelam gii la ko lëndëmal bari na de ndax nag moom jeexalul fanweeri fan yin ko may ngir mën a def appel te ñaari appel nag lan moo tax nag procureur ñu daal di koy tabb ay fan gannaaw bi nga xam ne war nañ joxe dig bi ci Sonko Mame Mbaye Niang lees waxul ma ni la mi ngi ci gii coow L'Obs mel ni ku naan kon la ma la waxoon rek Ousmane Sonko ci boppam boo moytul du bokk l'info yéene kaay na ma boobu gaa yaa ngay dalee fu ne Idrissa sek wal fu ko di ko mu ne day fan ni soqe ay sox ñoom Idrissa Seck lan teg seen kanam di ko jor Le Quotidien Le Quotidien taxawaayam dëgërul de fi mu ne fi mu toogee ci conseil économique social ak environnemental dëgërul Abdoulaye Diouf Sarr ci Source A naan Idrissa Seck na able su ko deful président président Macky Sall na ko dàq mooy dëgg Amadou Ba ci direct news naan dëgg ji xam ngeen ni mooy lan mënoo nekk ci coalition ba nuppi lu la neex nga wax ko jor ko teg ko ci kaw coalition bi Amadou Ba naan Idrissa Seck mënoo nekk ci nguur partager responsabilité yi ak nguur gi te nag saa bu yëngu amee nga daal di daw bëgg làqu feneen mënta nekk te ñàkk xam fi nga féete sax nag day indi le ndax nag da ngay perte buum perte lees ba turbine yéen kaay naan kon ma la ci ne Idrissa Seck na nag ca dëkkuk Bassirou Diomaye Faye ñaari million ak xaaj Idrissa Seck joxe ko fa te fexe ba Bassirou Diomaye fay mii daal di génn waaye idi naan yàggul dara dinaa defaat conférence de presse wax l'info yéen kaay naan kon waa APR daal nee nañu able Omar Youm na na Idrissa Seck dem Maawa Diouf naan boo nee candidat la da nga war a teggi sa mbagg président Macky Sall Doudou Ka naan président bu parti réew mi ci boppam moo seexluwul lenn te ay mbiram nag daanaka dafa bettatul kenn Samuel Sarr ci Dakar Times ne coow li coow li mooy Idrissa Seck ci boppam la mu wax Abdoulaye Wade teg ko fenn kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko teg ko ci ndoddal Abdoulaye Wade kiiwu ko ko mel ni ku kon sum waay nekkal ni vox populi naan man du yomb de ndax nag Abdou Sané mi ngi xam ni Idrissa Seck su ko neexee fëgg dënam jàkkaarloog président Macky Sall ndax Idi nag ci boppam dafa amee ay député yoo xam ne bés bu ñu bàyyee président Macky Sall majorité am daal di lompoñ ci assemblée nationale Abdoulaye Diouf Sarr ci source aane man Idrissa Seck ki député nañu dem turbine naan fi mu daal patriote ci boppam la diw vingt-quatre ne Aliou Sarr ci boppam la ñu bëgg mu doon candidat responsable na te kenn amul lenn lu koy taxal waa CAP naan ñetteel bu candidat bu président Macky la moom du samp ci mim réew mënta ne ñoom enseignant républicain yi nga xam ne ñoo nekk diggante Fatick ak Kaolack daje woon ak seen coordonnatrice Maïmouna Sissokho Okouma daal ji waxtaanee la nga xam ni président Macky Sall daal def na ko ci réalisation jaarale ko ci université Sine salum ñaar fukk ci lycée président Macky Sall taxawal ko fa ay collège yu sakkan lool ay école élémentaire yu dul jeex ay case de tout petits ay centre yoo xam ni dañ fay tàggatu diggante jaxaw ñaxaar Fatick ak Toucar lu toll ci juróom benn fukki junni ak juróom ci ndaw ñu jël leen ci fonction publique fukki junni ya ay jàngale liggéeykat lañu moom président Macky Sall taxawal tali Fatick Bambey defar Ndiosmone Diofior ak Fimela daal di leeral ay dëkk-dëkkaat yu bari enseignant républicain naan président Macky Sall ma nga ca financement ya jaarale ko ci DER FONGIP ak ANPEJ tax ba mouvement national des enseignants républicains di féliciter président Macky Sall ne kii moo def li diggante Fatick ak Kaolack kese bu ñu nee nag nañ ko jébbal réew mi kuy bañ waa F24 ci tribune yéen kaay na ñun ñooy de ñi nga xam ne réew mee ñu ñor ñun ñi nga xam ne nee ñu lu mu neex neex ci ñaar nga war a yem ñee boo ci yemul mën nga salfaañe dignité réew mi salfaañe askan weeg seen bëgg-bëgg ak seen xalaat lu mu neex ak lu mu liggéey liggéey waa F24 ne président Macky war ta bokkaat mënta bokk te du bokk F24 naan xanaa loolu moom leer na Walf Quotidien naan maan li leer mooy ñu ngi waajal korité waaye boo moytul daal soos du saf soble pomme de terre yi nga xam ne ñooy buur fi mu ne daal daal dinañuy cher ba jéggi dayoo ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm canta ngërëm ñeel na ko moom Mantoulaye Thioub Ndoye ci li euh, yéeni kay xëy fësal kon merci beaucoup fii la ñuy ndar képpe seen bloc d'information la matinale programme bi dafay wëyandi sur Zik FM ak euh, lii di tës 89.7 waaye tamit ñun dañuy wëyandil ak euh, Subatel la bonne équipe qui est là pour vous informer en tout cas pour nous avoir prêté oreille depuis 6 h ba jamono ji ñuy waxtaane kon nag on marque une petite publicitaire en marquant la fin